yàlla barkeel loo ko te mu muur loo yi toll ci liggéey yàlla jox leen liggéey yu barkeel xale yi toll ci njàng yàlla mottali seen njàng ba dafa leen ci lu kawe seen jot barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla jubal suñu jiit euh, suñu jiit ñu ngi jiite diine ji ak ñi jiite penc bi yàlla def ci ñoom maanu jub ragal yàlla yërëm yërmande ci askan wi ñu ànd ngir jariñ askan yi bañ a ànd ngir kompoloo di jëriñoo askan yu amalu leen jëriñ amalu yu jëriñ yal na yàlla jubal leen te teg leen ci saraatul mustaqim yàlla na yàlla eh, yërëmale suñu way daw yéegale ci barsax sidna muhammad seen bàmmeel yàlla doon xaarukaayu àjjana allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum eh, yàlla sàmmal suñu diine sàmmal suñu ngor sàmmal suñu bopp ba mu bu ma xajam àdduna yàlla bu ma xajam àllaaxira ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu nekkoon doon wax ci wàllu néegu sëy waaye tey dañuy bëgg a bàyyiloo xel réew bi ndax réew bi dafa toll ci diggante boo xam ni doy na waar nañu ñaan nañu ñaan ñuy ñaan nag suñuy politicien moomuñu sunum réew nañu jéem jiital intérêt askan yi te bañ a jiital seen intérêt bopp loolu mooy seen war-war de adduna gi dund gi yemul fii day dem alaxira te lu def sa moroom fii xajul ci bàmmeel ñu di ñaan ñu bàyyi xel askan bi ba a jiital seeni intere intérêt te jiital njariñu askan bi bi ci des nit ñi nañu bàyyi wax lu leen wóor maanaam dafa am ñetti mbir jullit nañu nekk ay jullit ñun ñi nekk jullit laay wax de jullit day wax lu ko wóor jullit day wax lu mu xam jullit day wax te du ko teg ci bakkan loolu lañ ci bàyyi xel mais boo toogee commentaire lu neex wax te gis nga njaalo ci lislaam kenn du ko tuumal nit te amu ci lu ba kon jullit dañu xam fi ñeem képp koo xam ne nee nga mel ni gis nga lislaam boo fekkoon nit muy njaaloo nga gis ko nga gis ko de yow nga ñëw fekk muy njaaloo nga gis ko jëxëral dara bu leer la boo génnee wax ko dañ la war a dóor quatre-vingts coups boo génnee wax ko fokk mu am quatre seede yoo xam ne yéen a fa dajaloo gisandoo ko leen yëgoowu leen bi ngeen ñëw ngeen soog ko mën a wax kon loolu yombul de kon loolu c'est dangereux jullit di ci aventuré wu na ku nekk yam ci li nga xam te kenn ku nekk li jënt say bàkkaari bopp dal lu yàlla kon nañu sàmm suñu làbbe yi di wax lu ñu wóor di wax lu ñu leer di wax lu ñu xam te li ñu waxee bu ñu ko teg ci bakkan xew ci réew mi nag yàlla ko yàlla leeral yàlla na yàlla dé dooleel dëkk yàlla nag ñun ja ñun bi nga xam ni yaa dëkk moom doole yàlla na dëkk yàlla nga ñu yaral Sénégal yi te Sénégal yi nañ góob a yaral seen bopp a bopp yar sa bopp nag wax naa leen ko fii keroog yar sa xol yar saw làmmiñ yàlla na yàlla yàlla suñu ñaari ndax mooy tax a bëri salaamaaleykum wa rahmatullah. Alhaïbou TV waaw Alhaïbou TV la meilleure chaîne YouTube du Sénégal vous donne des informations à temps réel actualité politique religion sport et divertissement waaw aimez abonnez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Al Haïbou TV la télé qui te pousse à réfléchir télé bi moo lay xalaat loo Al Haïbou TV